coronavirus jàngoro xam la bi nga xam ne daf dee mën a feebarloo nit yi ak rab yi ci nit yi nag feebaru nokki lam leen dee jox jàngoro ji nga xam ne moom lañ yëg ci lu yàggut nii moom lañ dee ooyee covid 19 waaye man dégg naa ñu ne coronavirus ku ko am dangaa dee déedéet loolu amut li am nag mooy jàngoro ji mu ngi law di daj àdduna si yëpp waaye nag bakkan yum si faat sax taxu koo bari ci nit yuñ jot a gestu seen biir xam ne ñu ngi amee jàngoro ji te ndoor di leen faj yaakaar am na ne ñooñu dinañ wér waaye jàngoro ji naka la dee waalaatee. jàngoro ji nag ci tëflit yu sew yi lañ nekk ci biir gémmiñ yi kii nga xam ne mu ngi amee feebar bi nga xam ne suñuy tisooli saxat mbaa ñuy laal seen gémmiñ jàngoro ji si la ñuy tasaaroo ci ngelaw li ci lañ dee mën a naaw dugg ci biir bët gémmiñ mbaa bakkanu keneen wala sax ñu nokki ko. ah kon ñu naka la def ba aar suñu bopp. na nga faral di raxas say loxo ci ndoxu set ak saabu te nga moytu di laal sa bët bakkan mbaa gémmiñ sa loxo yi muural sa gémmiñ ak musuwaar mbaa sa loxo te nga fexe sànni musuwaar bi ba pare nga raxas sa loxo. waaye ñu ne buñ dee jege nit yu feebar naka la ñuy def ba xam ku am jàngoro ji. ni ngay mën a xamee nit ku am jàngoro ji mooy suñ gestoo borom seetlu màndarga jàngoro yi ci moom bokk na ci màndarga yi tisoli ak saxat yaramu tàng muy liw jafe-jafey nokki ak sonn. waaye tamit dégg naa ñu ne ndaw ñi mënuñoo am jàngoro ji man de maa ngi am ñaar fukki at ñaar ah kon man mucc naa si. fii nag fuñ jar a bàyyi xel la. xam nañ ne feebar bii ci mag yi la gën a bari. te ñoom la gën a nekk di téye. waaye nag ku nekkaa mën a am jàngoro ji. xale ak mag. moo tax nag am na solo lool ñuy topp ci edd yu ñu jot a jox. man de suma kër jënd nañ laaj bu bari xooj ko si ndox li la ñuy di yey di naan ndox bi parce que mun nañoo aar si jàngoro gi. laaj day xam nañ ne am na solo lool ci suñu wérgu yaram waaye amagut benn gëstu bu wéral ne laaj mën na laa aar ci jàngoro corona. ah kon baax na xaaral ma sol suma gloves yi ak suma masque yi rek parce que lii mun na ma aar si jàngoro bi. masko yi ngay takk si sa xar kanam ngi nii dinañ doon am njëriñ su àndoon ak raxas loxo yu takku te sooy masko it fexeel ba xam naka nga koy jëfandikoo ak naka nga ko war a sànnee. ah baax na ñun Gambien kenn jarul ñuy jaale parce que dégg naa ne jàngoro bi du mun a dunda fu tàng te fii dafa tàng. corona bi xamut fu tàng xamut fu sedd Gambia fii nag benn nit rek lañ jot a gis ne moo amee jàngoro ji waaye foo mun ti nekk fexeel ba aar sa bopp soo dëkkee mbaa ngay tukki di dem ci dëkk yu nga xam ne ñu ngi amee Covid 19. léegi naka lay def pour xam na am naa ko wala awma ko. soo seetloo màndarga jàngoro ji si sa bopp fexeel nga em fi nga nekk bul jege kenn te si saa si nga oote 1025. ci line bu nekk nag te doo si fay dara mbootaay bu saytoo gestu garab ak jàngoro nekk ci London School of Hygiene and Tropical Medicine di MRC ñoom rek ñoo nekk di gestu wàllu jàngoro corona fii ci biir réew mi ñuñ see xool liggéey gi nag mooy Ministry of Health kon ñu ngey ñaax ngeen topp digtal yi ñu leen jot a jox pour am li gën a leer hôtel 1025 yéebaane bii nag MRC unit di Gambia nekk ci London School of Hygiene and Tropical Medicine ñoo leen ko indil